bismillah aleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñuy seetaan ci seen site istikhama point org dellu waat nan di leen ziyaara bu baax a baax tey jii nag di benn fan rajab ñi ngi fii ci kër euh, sëriñ Saliou Mbacke ku ne xam na ne benn fanab rajab saa bu ñëwee bokki jullit yi bokki taalib yépp dañuy teew ci kër Serigne Saliou ngir defi jàng xasida waaye tamit ak alxuraanul karim lépp nag ci ndigalul Cheikh saaliw la tàmbale woon eh, li nga xamante ne bi eh, mooy eh, bis bi di benn fanu rajab saa bu ñëw saa bu ñëwee bokki jullit ak bokki taalib yépp dañuy ñëw fii ci mbaaram Fawzeyni mi ngir jàng fi xasida bis bi nag mi ngi tàmbali woon ci ndigalal Serigne Saliou Serigne Saliou tamit ànd ko bokk jullit yi ay at yu bari ba ginnaaw suñu borom def mu làqu tamit bokk jullit bokk taalibe yi di ko wëyal ci ndigalal Serigne Cheikh mbakke euh, Saliou mi nga xamante ne bii moo fi toog toogaayu Serigne Saliou looloo waraloon seen site internet istikhama point org lépp loo xamante ne bii liggéeyub Serigne Touba la mu ñëw ngir indil leen lépp loo xamante ne bi bàyyikoo na fii ci kër Serigne Saliou kon bokk yi danañ leen indil ay waxtaan yoo xamante ne bii délégation bi jóge ci sëriñ Cheikh Saliou euh, mu yabal ko fi lépp loo xamante ne ay waxtaan la danañ ko indil xamante bii seen yëg-yëg ci bis bi tamit lépp loo xamante ni bii tàllal nañ leen si suñ micro dana leen ko indil ngeen mën a ànd ak ñun ci lépp loo xamante ne bii moo bàyyi ko fii ci kër Serigne Saliou di benn fanu rajab ku ne xam na ne tamit weeru rajab weeru am taarix la ci lislaam waaye tamit weeru bari ay ngëneel la buñ ko waxee tamit xel yëpp dem ci Serigne Fallou nga xamante ne bii Kazu Rajab ci biir weer wi ci la ñuy fàttaliku Cheikh Mouhamadul Fadil di ko di ko ci ñaanal waaye tamit aw xew-xew yu bari di ci am kon looloo waraloon seen site istikhama point org ñëw fii ci kër Serigne saaliw ngir ànd ak yéen ci liggéey bu rëy bi nga xamante at mu nekk euh, bokki jullit ak bokki taal bi yëpp dañ koy ànd ak waa kër Serigne Saliou di di fi sant yàlla di fi jàng alxuraan ak xasida ngir fàttalikoo ko eh, ñu baax ñi waaye tamit ngir ñaan jàmm ci réew mi waaye di ci yéene liggéeyal Serigne Touba lépp loo xam ne bàyyee ko noo ci ay ñaan ñu def ko addee Serigne Touba rawatina nag di ci ñaanale bu baax a baax Serigne Saliou Mbacké mu tedd ma ginnaaw sëñ bi amul jot. te it dafa xam ne. am naa sëñ Mourou Mbaye Ndiaye mii sax man ñaari baat rek laa ciy wax dafa am lu may seede rek loo xam ne day wane ni yàlla fayee sëñ Touba. dëgg la dégloo. dégloo leen sëñ Saliou Dane. nee na sëñ Saliou gay nga mu teye dana am lu mu yàq mu yàq ca mbind ma waaye Serigne Saliou nee na waaye na genn toog nee na genn toog ca daaja gu dem fu mu wërta gu dem fu mu wërta dem amul ngir teeyug Serigne bi nee na ngir teeyug Serigne bi akum njàmbaaram akum njàmbaaram Serigne Saliou wax ne nee na Serigne Saliou wax ni fu gaynde di dàqi mbaam àll nee na fu gaynde di dàqi mbaam àll ku nekk xam na ne nee ku nekk xam na ni ab àll la ab àll la bu ñu demee tey nag nee na bu ñu demee tey nag ba jumaa ji nekk nii ba jumaa ji nekk ñu koy def nee ñu koy def bisub rajab bii nga xam ne bisub rajab bii nga xam ne Serigne Saliou daa wax ne Serigne Saliou daa wax ne weer wi weer wi bis ñaaw amu ci lu dee fi tàmbali nee na ko cee tàmbali nee na manees na ko cee tàmbali lu ñu si àggale luñ ciy na ko cee wax ne Sëñ Touba wax ni kasu rajabin kasu rajabin akramani akramani weer wi ci boppam weer wi ci boppam moo ma teral moo ma teral kon nag bu tiraanga yi melee soxna faama def lii nee na soxna def lii ànd soxna Ndey ànd ak mboolem sët Serigne Touba na ñu na indi ko ci kër Serigne Saliou gii kon soxna Faama na kon soxna Faama na la Serigne bi fay li nga ciy wut waxuma la yow mi ko def waaye ñun ñi ànd ak yow suñu aajo suñu aajo mën naa fajoo fii mën naa fajoo fii ndax a dabe nee a dabe joxe ndam rawatina nag nga jox ko Serigne Bamba nee nañ sant nañu gërëm na la gërëm nañu la sëriñ bii ñu ko alaaji buso muy sëñ alaaji buso muy sëñ alaaji buso bokk ci ahlu busoobe bokk ci ahlu busoobe sëñ bala maa sañ ci kër nee bala maa sañ ci kër bala maa sañ ci kër am muy wàlliyu nee na am muy wàlliyu loolu ñaan sama borom loola la ñaan boromam bu nangulut nee na nangulut du ma samp mu samp ko mu samp bam nekk fii bam nekk fii di fi jëwriñ dara mënu ko nee na loolu dara mënu ko kon ñu ngi ñaan nee na kon ñu ngi ñaan li nga ci yéene li nga ci yéene yéene ko ci murid yi yéene ko ci murid yi yàlla nañ dajeeg woon ko lool waaye nag mu demee aljanna da koo dolli di leen sant bu di leen gërëm bu nee na jëf jii day yàgg na lool waaye dana gën a yàgg ci kanamu boroom la ko li ngeen ko daan def mbooloo mam mu daa mu daa ko boole ak yéen ñii nee na mu di ko seede nee na xamoon nag lii mujj moo taxoon mu boole la moom nee na moom mii nag soxna Faama jàpp na ko lool nee na téye ko lool moom mii te jëmmi sëñ Tuubaa rek ak sëñ Saaliw ñoo tax ñu def ko nee na ko wóor ni lii defal sëñ Saaliw kanam la ndax kii mu koy defal muy sëriñ Seex wuutu sëñ Saaliw mat ko sëkk yàlla na ko saa borom yàggal yëral ko gis na liggéeyam xam na liggéeyam xam na pasteefam xam na ak taalibeem ndax moom mii sëñ bi da koo jàpp gërëm ko ba woo jox ko bis mu ñëw fii mu ànd ak borom mu jox paasu màkkaa ngi damaa bëgg nga dem mu karram nee na te moom jaaxaloon jaaxaloon na ci. nee na moom loolu jaaxaloo ko la jaaxle woon na ci. ndax dafa agsi rek. mu jox ko billet bi. loolu dara walu ko doon. nee na loolu nag dara walu ko. ak taalibeem ak pas ak yéeneem. lii muy def kanam la jëm incha allah ak ñi mu ko àndal ñëpp. sëriñ Xaadim sëriñ Xaadim seereel ni lii. ci kanamu ku baax ki la ko daan defee. te teggeegul tànkam nag benn yoon. nee na mu wax ci moom li mu koy wax. waxtu wu ne daf koy wax ni ko. dama ñaan mu doon ay nag ak gileem. dama ñaan mu doon ay nag ak ndax xeeb li muy def. ndax xeeb li muy def. waaye Serigne Saliou dafa wax ne. xeeb jëf day. xeeb jëf day. mandargam nangu la. la. boo xeebee sa jëf. boo xeebee sa jëf. nangul nañ la ko. nangul nañ la ko. te dana yokk est-ce que li nga def. soxna si li nga def. ci kanam ci kanam. ca kanam. loxo ci kaw. waaw. Bousso yow yàlla nga fi yàgg te yàgg ko ànd ak ñu baax ñi ko àndal jërëjëf yàlla nga fi yàgg jërëjëf bokk jullit yi bokk taalibe yi e, niñ ko waxee woon léegi rek tey jii di benn fanu rajab fii ci kër Serigne Saliou waaye nag ñi ngi taxaw ak Serigne Galas Amar bokkoon ci dongay Serigne Saliou mu yëkkatee ay xasida waaye tamit wax lan moo yëg-yëgam ci bis bu tedd bi sara law dan duna suuxtin hinda sarsara amdi wa suug li man kulli bihi sara له إذا دون سوخت هند سلسلا لو سناء وريد واني بلا سقات مسخد لي من بني ديمان أنشالا لله كل لدى أبار ما كميت منها أتانا وفيها جم من شاء إن الذين إلى سغسار قد خسدوا سيارتي فرقوا دارين أو سارا di Seex Saliou Mbacké lan nga yëg ci bis bi bis bi am ci mbégte lool rek xam ni Sëñ Saliou da ko fonkoon lool daan ko taxawal boppam te ñu wax ne mooy bis bi nga xam ne ci lañ sañ ci Touba te maanaam dëppook mbégteem sëñ bi lool sëñ bi fonkoon ko ñuy ñaan rek yàgg ko teew te te te kenn bañ a manqué ci barke sëñ Saliou jërëjëf yàlla dogal nga bokkoon ci e, dong yi yi nga xam nekkoon nañ ci daare sëñ Saliou tey jii e, murid yi bi nga leen gisee ñu nekk ci barab bu tedd bi xam naa ne e, danañ ci yëg lu baree bare yëg-yëg bi nag xam naa ne xel yëpp dana dem ci ku tedd ki di Serigne Saliou waaw léegi rek laa koy wax kees gii nga xam ne maam daanaka li li ëpp suñ Saaliw fii la ko daane ba ca barab bee sax la la la la ñibbi na muy barab bi nga xam ne maanaam léegi laa toog naan fii jafe gi mu jafe woon a dugg di ko xalaat nga xam ne xel yëpp day dem ci suñ Saaliw ak ak yërmande jaak bëgg lu baax ga donga yi nag moom daanaka fi ne ñu ngi jógee gox bu ne di ñëw ñu fonk bis bi lañ ngir xam sëñ bi ni mu ko fonke woon ñu ngi ñaan daal teewe ko ay déwéni déwén loolu ci jërëjëf euh, bokki jullit yi euh, bokki taalibe yi kon xam naa fii la ñuy yem ak yéen di sant bu baax a baax di leen fàttali rek ne benn panu rajab saa bu ñëwatee rek ci ndégalu Serigne Saliou mu ànd kook dong yi doon ko màggal Euh, tey jii gis ngeen lépp loo xamante ni bayoon na ko fi seen site istikhama point org ànd ak équipe technique bi euh, Serigne Madieng ak sëriñ Moustapha Ndiaye ak Serigne Abdou Baaxe doon leen ko indil ci nekkoon ci micro bi doon leen ko indil nag seen mbokk seen xarit Murit Mbay wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Amen.